الضالين آمين daayira Taysirul Asir bu ingénieur école polytechnique bu Thiès saso woon ci complexe Cheikh Ahmadul Khadim di université bi nga xam ne sëriñ bi moom lay liggéey fii ci Touba mbaar mi nga xam ne moom lañ dëppee benn ci penc yi te ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndongo yu góor yi mën di fi nafare wala di fi dalloo wala suñ jàngul mën di fi toog wala di fi amal yeneen i jotaay yu demee ni ki njàngoo xasida ak yeneen ya ci aajowu sëriñ maam Thierno Mbacke moom sëriñ Moustapha Bassirou mi nga xam ne mooy saytu liggéeyu complexe bi yëpp di leeralaat fi nga xam ne fa la jaar ba fii. daayira Taysirul Asir euh, bi nga xam ne moo boole ingénieur école polytechnique Thiès euh, yàlla dogal ñu demoon ci sëriñ bi euh, feeñal fa seen yéene wax ko seen yéene ngir liggéey barab bi muy mbaar moo xam ne mbaarum jàngu la ci alxuraan wàllu alxuraan bi. pàcc alxuraan bi ci daara ci ñu liggéey ko ci daanaka juróomi weer ak genn wàll ci fanweeri million daanaka ju tegal kon Mbàkke loolu wone ne yitte ci bi ndigali jógee rek dañoo ànd ñoom ñëpp xam naa Cheikh mi lañ jiite dana ci dellusi waaye ma ma gaaral la rek yéen ji ji ma fi gis ak yitte ji ma fi gis ak pas-pas bi euh, euh, daanaka ba ñu ko jëlee rek lañ ci daal di nekk ci diir bu gàtt gis nga ko nii ni mel euh, muy mbaar mu am solo ci daara ji xam naa danga ci gën mën a dellu si gën a gën a yaatal loolu waaye kon daal li ma mën a wax daal mooy seeral leen sama ngërëm ma ci sama wàll boobu xam naa lott naa ci sax waaye ma wax ko man man mi ko àndoon ñoom Euh, gis li ñu fi def ak niñ ko defee euh, euh, mbooloom bi yëpp ànd ci def ci seen seen yitte seen man-man seen xam-xam te yemuñu sax daanaka fii léeg-léeg ñu ñëw fi gis fi yeneen wax ma ko ngir dolli kon loolu yëpp moom ci tawfeexu sëriñ bi la bokk kon daal damay damay damay sàkku mbàkke nga ñaanal leen sunu borom dolli leen yokk leen ñoom ingénieurs yi liggéey ko ba mu àgg def ci lu toll ci 32 millions de francais CFA ñu doon jébbale caabi yi ci samedi gi dëppoon ak le trois septembre 2022 ci biir complexe bi. ñu fa jógee lañ daal di jublu ci liggéey bi ñu jaarale projet bi fii projet war a jaar maanaam ñu évaluer projet bi. mu tolloon ci bi ñu koy jox mu tolloon ci vingt six millions TTC ginnaaw yàlla dafa def ay boromi xam-xam nekk fi seq liggéey bi biñ ci waxtaanee suñu maam Thierno ak mboolem ñi nga xamante ni ñoo yor liggéey bi ñu xamal leen ñu am nañ sañ-sañu maanaam luñ ci bëgg a dolli ñu dolli ko ji mais na waaye nag nañ ko valider looloo taxoon ñu am ay soppi yoo xamante ni xalaatoon nañ ko ci ba indi woon ko ci lu mel ni pergola bi nga xamante ni nii dafa dañ ko ubbi woon ñu proposé woon def ko benn daal ba nga xamante ni daal béton bu ferme lay nekk ngir naaj bi bañ a dugg ak bu tawee mu ndaw taw bi bañ a dugg bi toiture bi euh, type tuile bi nga xamante ni moom lañ choisir ci début bi ginnaaw bi ñu doxee ba ci kii lañ xam ne am na beneen boo nga xamante ni moo gën a méndoog jamono hmm. mu ñu proposé boobu noonu donte moo gën a cher waaye ñu dugal ko ci rampe yi nga xamante ni moo ne ci biti ak garde corps yi aluminium yi ñu nekk ci biti yëpp ñu ñu dolli ko ci looloo tax budget bi jógee vingt 26 millions yooyu ñu waxoon mu ngi yegg ba 32 millions cent mille manqué tuuti loolu lépp Mbàkke ñu koy def mbokk taalibe yi la ñu suñ Muntaxa waxoon bañ fa demee ni na ngeen ci demee yitte ak paste fu ngeen ci bëgg a yegg mën ngeen di ngeen fa yegg mbokk taalibe yi loolu rek moo nekkoon suñu suñu doxin liggéey bi nag daanaka ci juróomi weer rek lañ ko liggéey ba mu àgg ah, projet bi ni ko sëñ Maam Thierno waxee structure mixte la maanaam partie bi suuf béton armé la waaye li ci kaw structure métallique la moom moom forme bi wax dëgg xaw na nekk fon boo xam particulière daanaka sax loolu tax na li gën liggéey bi toll ci juróomi weer ak ak ak ak ak genn wàll. sëriñ Ahmadou Badawi Mbacke moom Cheikh Mouhamad Fadel Mbacke mi nga xam ni moom la sëriñ bi dénk lépp lu jëm ci wàllum njàng mi ci complexe bi moo ko fa teewaloon àndoon nag Serigne Fallou Mbacké imam bi nga xam ne Serigne bi moom la dénk lépp lu jëm ci njàngum alxuraan bi ci complexe bi ñu sant bu baax a baax waa daayira Taysiirul Asiir ci jëf ju kawe ji nga xam ne yàlla dana leen ci fay. waaye na leen wóor ne képp koo xam ne toog na ci mbaar mii tuyaaba ja sunu borom di fay ka tabax jàngukaay ba kenn ku nekk ci yéen dana ko fay ndax noonu la toll moom li ko nit jaam bi am la koy lebalal waaye buy fay lam koy fay la koy fayee wax naa ko léegi ci liggéey bee Serigne bi defal boppam nga xam ne amul beneen yitte luñ ko jox fee la ko jëmee waaye ka am dërëmam dugal ca moo ko am téeméeri junni dugal ca ka ca def fukki téeméeri million wala ka ca def milliard ñoo yamu bi wàl fa borom subhanahu wa taala ndax ñoom lañ am lañ jox yàlla waaye bu leen di fay nam tollu lay fayee boo lebalee yàlla sa kem kàttan moom bu la koy fulal day bari bari ba kem kàttanam ak kem coobareem rek la lay fayee kon nag bu ngeen ñëwee jàpp ci liggéey bi nekk ci biir sas yi nag nga xam ne fii moom mooy sas yi ñu bi nga xam moom ci biir sas yooyu ngeen ñëw jëf fi jëf ju rëy jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekkee ci daayira Taysirul Ansir nekk ay ingénieur te génne ci école polytechnique bu Thiès sant nañ bu baax a baax mbokk taalibe yi nga xam ne ñoom lañu àndaloon liggéey bii waaye am mbégte lool ci bi mu àggee bañ jébal ko sëriñ bi. di ko sant bu baax a baax a baax nag ndax yoon wi yaatu na waaye defal nañ tawféex ba sant ñu liggéey bii ñu mën a am tawféex suñu borom ba man cee barkeelu euh, di sant mbooloo mi muy Touba polytechnique di daari bu sosoo Thiès ca école polytechnique ba. am ci ñu génn nekk ci biti comme sama jëmm ji ak ñi taxaw ak ñu nekk ci école ba di jàng ñëpp bokk liggéey bi ànd ko di sant mbooloo mi bu baax ba suñu borom defal ñu tawféex bañ egg si tey bisab tey jii war a jébbale yi euh, di ñaan ànd ak sëñ bi ak yeneen naal yu bees ba àggale ko comme niñ ko àggaleeg bii mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñu ngi si fas mu yàgg fi lool te ànd ak wér ci barke Borom Tuubaa su ko defee ñu nit ci jaamu yàlla ak liggéeyal sëriñ bi ci lañ fas yéene def suñu lépp euh, bi suñ borom dogalee may ñu tawféexi Euh, xam-xam yi nga xam ne moo jëm si wàllu euh, tabax euh, lu jëm si wàllu électromécanique ak informatique wala aéronautique noonu ko sëñ Mopende Kébé doon limee sànq bi mu ñu tafaxalee ñu am xeetu xam-xam yooyu dañoo jëlaat xam-xam boobu fas yéene ci liggéeyaat sëriñ bi ndax xidma day lu yaatu lool kon barabi jàngukaay dara gënu ko màgg ci xidma noonu lañ koy waxee euh, tamit euh, li nga xam ne moom la nit ñi di woo ci dëkk bi ak lu lépp lu mu mën doon muy ay yoon muy euh, luy leeral muy ay ndox muy dugg wala muy génn lu wàllu assainissement ak yëpp lépp ñun de murit buñ koy jëf. dañuy jàpp ne ci biir xidma la dugg liggéeyal suñu borom la te dañu ci yaakaar payuk suñu borom ak ngërëmam. ginnaaw bi ñu bàyyeekoo ci complexe bi ànd nañ dem ci cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalifa général des Mourides Serigne maam Thierno Mbacké leeral ko lépp loo xam ne moom moo jëm ci liggéey boobule mu santaat bu baax a baax waa daayira tey en Ansir di ingénieur yi nga xam ne ñoo génnee ci école polytechnique bu cees ci liggéey bu kawe bi nga xam ne def nañ ko ci complexe bi.